dégg nga la yàlla dogaloon loolu la yaayam di jooy da ñeewantal mais nag kontaan na ci xale bi kontaan na ci jëkkëram yal na yàlla guddal seen fan waaw yaayam daal kontaan na ci moom daal bu baax te ñun ñi yaayam kontaan nañ ci moom ma dëgg yàlla boo gisee muy jooy dafa bëgg rek dafa bëgg rek moo tax muy jooy wax ji bari woon lool euh, ci bés bi ñi naan dina am ñi naan du am tey suñu borom euh, tëj na ñu wax kat yi nga xamante ni ñoo doon wax loolu yëpp waaw boos moom dëggal dëggal na moom li mu doon wax parce que nit ñi naan du am ay da koy foyee da koo da koo bëgg a yóbbu lu ne mhm. mais boos mu wax dëgg yàlla mhm. gor la moom it mhm. dëggal na li mu doon wax xale bi tamit téye na boppam moom it dëggal li mu doon wax ba yàlla tey def lii tey jii muy dëgg yàlla na yàlla def sëy bi barke wax ci sa doom moom bi lay may ba mu ba mu ba mu ba mu lii ba pare parce que ñun ummi amuñu leen loo xamante ne mën ko mën nañ koo wax si moom moom kii yaayam la man a yaayam ñoo bokk ndey ak baay ak kii ak sunu mag a nga fële ummi dafa nekk xale boo xamante ne dafa réglé toog ci penku ndeyam demul dikkul tiktok bi xëy na la ko ñëpp xamee waaye noonu la respecté boppam noonu la fonkee boppam toog ci wetu yaayam ba yàlla may ko jëkkër kon lu ñu deful ci moom dañ koo fàtte ummi li ñu ko mën a defal dinañ ko ko defal xam nga ni mu mel moo tax tey bu ñu amoon jamaa dañ ko koy wàcceel parce que dafa toog réglé gis nga ummi moom ak ñëpp a yem borom ñaari tànk yi ñeewu leen de ñeewul borom ñaari tànk ummi lii borom ñaari tànk di def lu ko raw ummi da koy def ummi day fóot ummi day bale ummi day raxas ummi day toog te bu la toogalee nga kontaan kon lu borom ñaar tànk def loolu la ummi di def xëy na yàlla na moo dogalee nii ta liin ndog-ndog la te dañ koy sante yàlla bu baax a baax a baax ñu koy sante yàlla bu baax a baax ndax na mënoon naa gën a metti mais ñu ngi koy sante yàlla bu baax sant yàlla bu baax a baax di kontaan bu baax a baax ummi xale bu baax la ummi lu mu am lii teeñ bi la yan bi ñëwagul dafa nekk xale nekk jigéen yërëm yaayam umb bu léttee bëgg si bëgg si tubay bëgg si dara lu mu létt man la koy jox lu mu defar man la koy jox li muy liggéey lépp man la koy jox soo gisee tey jii tabaxul étage yàlla ak man la maa ngi koy ñaanal sëyam bi lu mu ci bëgg yàlla na ko suñu borom bi defal boos sagal na ko boos sagal na ko bu baax a baax macha allah bañalu ko dara boos def na fi lépp dara manqué wu maa ngi koy sant di ko gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla nañu ci am njaboot bu sut seen jot. amiin amiin barke Seydina Muhammad. boos tey tey bi nga gis reménage lan nga ci mën a wax lan. diggante umeeg boos. sant rek sant yàlla lu yàlla bindoon la ci aras. mënul woon a ñàkk. lii yàlla daf koo bind ci aras ba pare. mënuma si dara su ma ko bañoon ni dama siy ñaaw rek waaw. commencement bi moom nanguwuma woon sax ndax dama ne woon da koy fowee. waaw ndekete poos da koo bëgg waaw daf ko bëgg umbi damay dëgg si moom lan nga koy conseil ci néegu sëyam sëyam mu def comme ndayam rek parce que man sëy laa mm, bu sëyee bu defee ni ma def man dina fa toog léegoo ñi moo tax ma def ko defal ko ko waaw waaw waa asalaamaaleykum waaw man nag média yi musuma cee musuma cee wax waaye comme dañ ma laaj il faut ma wax li ma xam ndax ummi mii ñuy takk tey nii papaam ñoo bokk benn baay yaayam man maa ko wàcce ki topp ci ummi man lañ ko tuddee maada waaye macha allah lu rafet rek lañ ci wax ndax yaayam sëy na sëy bu rafet ci sumu kër macha allah musul fay musul musul fase kon lii mérite la du chance mérite la daal wax dëgg yàlla ndax lii moo ko liggéey ci kër euh, bàyyi ummi tey jii macha allah ñu ngi koy ñaanal sey bi yàlla na barkeel man yii ñemewu ma ko sax Touba laa dëkk mais mais di il faut ñu wax ko daal waaw buñ ko waxul rek duñu gon ndax dañoo fekkee waaw ba ma am ci turandoo man macha allah kon yàlla na yàlla barkeelal sey bi mu mu mu barkeel lool taamu li sëy yi yàlla gën a taamu ci sëy yi jër koy jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. kii ba soix na ngeen def fay nañ leen. waaw waaw tey nag di bés bu mbégte mu nekk bés bi nga xamante ne euh, papa ju nekk moom lay ñaan euh, li nga xamante ne yàlla suñu borom bàyyi la ak sa doom ba bés bi nga xamante ne euh, moom la suñu borom di ko jo dajale ak beneen góor tey jii nii boo ñu wax sa mbégte si bésub tey ji lee man xam lan moo ma jaaxal kontaan gi ma kontaan tey ba ma juddoo ba léegi mosuma koo kontaan <laughs> yan kàddu yi rafet nga ñu mën a wax sa sa doom ndax gis ci moom yar ak teggi waaw loolu moom en primo loolu laa njëkk a sama doom ji mooy euh, yar gi mu ma jox ak teggin gi ma jox moo nekk sax ci ay magam nekk ci ay rakam mooy maanaam xam nga am doom mu bëgg baayam bëgg ndeyam bëgg ay magam ak ay rakam foo ko yemloo mu yemloo fa foo ko xam loo ko wax mu jël ko dugal ko ci noppam te mu bañ a génn ci beneen nopp ba am yar googu am teggin googu te demul dikkul loolu booy franchement jeune homme c'est euh, loolu ku ko am ci doom nga dem ba mu am bis bi ci bis bu set ci bu sell doo mun a def lu dul sant ko gërëm ko te di ko ñaanal lu mu jublu lu nekk yow yàlla jublu fa voilà. ñu gis ki nga xamante ne moo di euh, Boss def na lu am solo euh, xale la tamit ku gëm boppam euh, tey jii nii boo ko doon dénk ay kàddu jëmale ko si sa doom an yan kàddu nga koy dénk amaana mu ngi suivre vidéo bi. non man li may jëkk Boss xam nga mooy lan mooy xam nga gañe na xam nga nit ñu bëri dañ doon wax naan boos bi mun naa am certain sax loolu lañ doon wax. ah xam naa boos de day exploité xale bi rek ak vie son handicap ak yooyu xam nga dund ci vivre ci après dem yoonam mais boos dafa nekk koo xam ne nii defe naa man mi bàyyam sax ah, ni ma sama doom ji bëggee boos ñu ko ëpp sax lu la ma bëggee donc man njaboote naa ko def ko comme sama njaboot def ko comme samay doom ma xool ko tamit mu nekk xale bu ambitieux gëm li muy def ba pare nekk sama mbokk boole ci donc aw ma dara lu may crainte moom loolu di ko félicité wan ko ne ko lii mu def ci lu rëy la ci grande première euh, ci Sénégal gi fekk koo xam ne ni ndeysaan sama doom la maa ko jur xooloo na ko yàlla bindee xooloo la euh, la ko ndogal ba ca ba ne ci moom nga bëgg ko rete yàlla tax boo tax na nga jël ko ñaan ko ay waajuram ñu may la ko ñay ci may bu rafet nga defal ko bis bu mel nii bu am solo bii ba ñëpp fekk ci teg seen bët duma def lu di ko remercier di ko encourager ne ko dénk naa ko sama doom mais wóolu ko moo tax ma dénk ko sama doom voilà may naa ko ci xol bu sedd guy waaw na yàlla def jàmm. merci beaucoup. waaw ñëw ñëw. waaw Baba doo bàyyi fi ma laaj kii kan la ah Baba. Baba doo bàyyi fi ma laaj kii kan la. la.